li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaafal min dikk nan tey gërëm di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaar dikk nan tey gërëm di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaar soxna jaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu bokk poroxaan yëpp. di nuyu bokk jullit ñi fi daje yëpp tamit nag. suñu tànk fii tey tànk feddali wëllëre la. ñëwoon nañ Touba ci sarax si. waaye xalif bi jotuñu woon a gis woon moom ndax dafa xatoon. tey nag ñu fas yéene ne ñëw fii ci poroxaan. ñoo gis ak sëriñ bi ñu toog ak moom ñu waxtaan ak moom. ndax ay bokk lañu. te ñun ñoo bokk lislaam bi ñun ñoo bokk lu nekk. te it ñëw feddali wëllëre bi jaaroon diggante alaaji Amad Dem ak moom kii fi toog tey ak ak ak way juram bu góor ba mu ñëwee Sokone dafa om mbokk taalibe sëñ Tuubaa ya fa nekk yëpp mu ne leen dënk naa leen alaaji Amadou Dem seen adiya seen tool yëpp jox leen ko alaaji Amadou Dem murit boolem murit bi nekk Sokone tey ñu ngi nekk ci loolu comme nag yàlla dogal na tey mu toog ba ñu ñëwee ca ca sarax sa mënuñ ko woon a gis mm-hmm. tey nag ñu ñëw pour gis ko wante ak moom ñaanalante ak moom feddali wëlër bi nekkoon diggante El Hadj Amadou ay woy juram lii mooy suñu tànk. ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziare ñëpp ñu Mountaga Kane mi itam bañ ñëwee ba léegi maanaam ñun gis nañ ni mu taxawoo ñu ñu taxawoo waaye na noonu la taxawoo sëriñ bi tamit nag noonu la taxawoo xadara maanaam maam sëriñ Touba moom it ñu ngi koy ñaanal lépp lu mun yàlla na ko ko yëpp maanaam yàlla na yokku yàlla na la yokk bu baax a baax a baax ci mbaaxu yonentam bi maa ngi ànd na nag ay sumay bokk mm-hmm. maanaam ki Medoune Sène suma goro la mm-hmm. maa ngi ànd ak itam koo xam ne doom la tamit mu ngi Kaolack mu di wax gay sek mm-hmm. ñii ci tarixa murid ya lañ bokk ànd ak suñu tànta maam Awa Dem ñii ñëpp ñun ñoo ànd tey ñëw gis sëriñ bi maanaam nuyu ko ànd ay taalibe yoo xam ne xadara kër Alaaji Amad Dem lañu ñoom Youssoufa Sakho ñoom Oumar Badiane ñoom Mouhamed Ndiaye ak ñoom Amadou Fall ak ñeneen ak ñeneen. ak ñu ngi ànd ak maanaam Oumar Diallo. Boubacar Diallo. dëkk Njabto. mooy imam bi foofu. moom tamit dama ñëwoon pour boole ko ak sëriñ bi nee naa leen. la la la la sëriñ ba waxoon Alaaji Amad Dem. wooy jëri kii fi toog tey. loolu laa leen wax. nañ jàpp fii nañ jàpp sëriñ bi mooy seen sëriñ. mooy seen kilifa denk naa leen sëriñ bi wax naa ko sëriñ bi. waaw loolu laa amoon maanaam lu ma leen doon fesal ngeen xam ko ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm yàlla yàlla yokk jàmm jàkk sotru si allahumma salli ala muhammad li sadinatan